pas parce que moom ci wàllu xam na ne au sein de son parti am na ñoo xamante ni ils ont les mêmes ambitions présidentielles que le président Macky Sall ni mu ko amee woon en en 2012. ñu ñëw sax jàll ci kenn koo xamante ne ay njegeñaal euh, benn ci njege njegeñaale président Macky Sall la mu di Moustapha Cissé Lo am kàddu yoo xamante ne yëkkati na ko fële euh, ca assemblée nationale nga xamante ne marathon budgétaire bi mu ngi wéy donc ñu dem seetaan ni ko dellu si ni Cissé Lo du wax di ko saaga du ma ko nangu bu ñu génnee ñaan ma cent mille un million bu ñu amee problème trente sept millions laa def ci campagne législative yi député yi am na ñu ma ci jox ak ci ministre xaalis trois cent millions laa def ci campagne yu ki Sall nañ ma laaj fu ma ko jëlee ah dana nangu ay Aïdara Sylla yori milliard à côté Jinne maa ko formé c'est un entrepreneur yori milliard man waruma yor ay milliards te le pouvoir bi yor ay këyit comme ñoom muy kon kàddu yi tukkee woon ci Moustapha Cissé Lo mi nga xamante ne en quelque sorte dafay dénoncer njuuj njaaj bi ñu gis ci commercialisation gerte bi. moom daf koy door wax rek mais ñun xam nañ ko yàgg nañ ko fi wax tout ce que Moustapha Cissé a dit hier sur la manipulation des chiffres loolu lépp ñun xam nañ ko fi wax wax xam nañ ko te wax nañ ko fi. Mhm. parce que démb dégg naa ko mu naan chaque fois bu dinañ wax ne production agricole bi temps la un million mais j'ai une fois Abdoul Mbaye tax na wax na ko moo leen semence yokkul pluie pluviométrie bi gënul gënt te baax engrais yi gënul baax te nombre de terres yi nga xamante ne ci la ñu cultivé gënul ëpp ba pare ngeen bëgg a jógee fii bëgg a def benn bon pratiquement de plus de cinq cent mille tonnes mhm. loolu mënul nekk cest à xel mënu ko nangu et chiffres yi ñuy wax duñ ko basé ci dara quelqu'un mooy jóg rek ci ñoom daal di avancé benn chiffre nit ñi yëpp topp ci wax mais amul benn étude scientifique boobu xam mooy wax loolu mhm. si c'est loolu loolu doon dénoncé hier effectivement affaire opérateurs ne ñoom la ñu a jaay gerte gi ñu jox gerte gi ñu jënd ko jox ko état bi duñ ko def parce que finalement dafa am des gens qui sont là ay genre spéculateurs l'état les enrichit ñu jox leen ko peut-être aussi ña leen ko jox ñoom après dina am benn ristourne boo xam ne dinañ ko ci am. Mhm. finalement loolu moo indi woon sous le régime de Wade ce qu'on appelait les bons impayés e. te bons impayés e yooyu dafa am ba léegi moo tax léegi loo si gis. bu fekkente ne ñoom dañu war a jaay état bi finalement il préfère même dem brader ko dans le marché parce que non seulement prix bi ñu ko jaayee moo gën a kii et puis là aussi ils seront même à l'abri mais ñi nga xamante ne ñoom la état bi jox euh, ay financement pour ñu ñoom dem di jënd gerte gi ba pare di ko di ko jaayat encore si c'est ce qu'il était en train de de de dénoncer peut-être man lu ma ciy fustigé mooy la manière cest dire la forme mais li muy wax c'est mais peut-être forme bi moom aussi peut-être est am ci marché yi amu ci je ne sais pas lan moo tax lan moo tax est-ce que dafa bëgg a dénoncer une injustice su ko dénoncer aussi je sais que ne donc tard mais mieux vaut tard que jamais mais ba mu nekkee ci régime bi depuis sept ans toujours ça a fonctionné comme ça sous le régime de Wade ça a toujours fonctionné comme ça donc je crois que moom tey su demee ba di ko wax peut-être il a aujourd'hui un contentieux à régler mm-hmm. parce qu'il faut se rappeler que bien avant il y a un problème qu'il il y a un différend qu'il a opposé avec euh, Maître War mm-hmm. donc je crois que loolu aussi il faut nit ñi bàyyi ko ci xel et toujours moom il est sur le même registre aujourd'hui mm-hmm. léegi nag ce que ça traduit aussi politiquement c'est que Cissé Lo peut-être n'est plus en odeur de sainteté avec le président Macky Sall. tout à fait alors euh, yaa ngi wax problème de fond alors tey euh, li ñu li ñu comprendre mooy euh, majorité bi actuellement nii dafa mel ni ñoom ñooy seme semer désordre à l'Assemblée nationale. nañ Cissé Lo dégg nañ Djibril War alors tey lan moo mën a expliquer loolu dafa dafay feeñ ci troisième mandat bi ñu doon tudd léegi wala lan la. non xam nga luy expliquer loolu d'abord c'est la manière avec laquelle on a choisi les députés de la majorité et même de de l'opposition mhm. parce que dafa am député da ngay am légitimité populaire mais député yi nekk fii kenn amu ci légitimité populaire xam nga ñoom dañ naan nous sommes des du peuple bon ñenn ñi sax ils la franchise de dire moi je le député du président man sax ñooñu laa gën a mën a déglu mais kenn amu ci légitimité populaire parce que su fekkante ne dañ la mettre sur des scrutins de liste liste yi jàll la tout simplement moi je me dis que en ce moment là amuñu ñoom légitimité populaire gis nga suffrage universel comme ni ñuy falee président di ko bëgg falee maire yi noonu la ñu war a falee député yi de ce fait man tey su ma toogee sama koñ Modou ak Ami da ñoom dañuy dem scrutin su ma xamee ne kii Modou mii laa gën a wóolu su ma ñëwee ma ne bulletin Modou laay jël ma voté ko su fekkee Ami laa gën a wóolu ma voté ko su su boobaa résultat yi su génnee toi tu n'as aucune redevance à l'endroit du président de la agitation bi le fait que ñu agité agitation bi gis nañu ko euh, Cissé Lo di ni ko ko moytul dina def ay révélation euh, tamit di accuser Moustapha Diakhaté tas mooy xeeñ effectivement ça veut que euh, li waaj naan euh, sabar bu tas. <laughs> comme sabar bu tas parce que actuellement genre procès en sorcellerie la ko ci nekk yaa ngi wax sa morom pratiquement ñi nga xamante ne mooy nekk en tout cas au dessus du euh, ci ci ci suuf table ji. Mm. mais loolu aussi li ko waral moo di au sein de la majorité c'est que dafa am ay camps yoo xam ni nii qui sont en train de se dessiner au sein même de la majorité léegi nag pëcc bi ci boppam xeex bi moo commencé parce que gis nga boobu. gis nga lii waral assemblée fi nekk di agité dina dem ba détendre foofu rappelez-vous sur l'ère de fronde bi nga xam ne moo amoon ba pratiquement dégagé wu ba Idriss Seck ci par parce que fronde boobu ba muy am ñoom Omar Sarr ko def qu'est-ce qu'on s'était dit que à l'époque dañu waxoon nañu ne Idriss Seck gars yi bon dañ leen identifié woon comme des pro Idi mais on s'était dit que du Idi mais gis nga finalement ci naa wax ne ñoom ñoo ils ont fait le lit du du scénario yi actuellement moo euh, moom moom euh, mooy destiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale parce que y des appétits qui sont là mais il faut aussi se dire yi nga xam ne dañuy wax ay caisse de résonance donc lañ ah, de certains ministres yi nga xam ne aujourd'hui ils ont des ambitions yoo xamante ni yu ñu yu fësal te je sais ne aujourd'hui le point de départ pour loolu c'est tout simplement l'Assemblée nationale aujourd'hui ce sont les mêmes waaw xam nga règlement de compte yooyu mooy li mu wax xam nga je je prends le cas de Djibril parce que j'ai entendu lu mu wax accusation ay détournement de de de six cent millions. Mm -hmm. mais je crois que moom suñ jàppee Moustapha suñ jàppee Moustapha Diakhaté dañ ko jàpp. Mm-hmm. parce que ñoom ñoo bokk affaire bi. xaalis boobu. xaalis la boo xamante ni ñoom seen biir la. Mhm. donc puisque ce sont des fonds yoo xam ñoom ñoo ko doon séddoo fu ñu jàppee jaxate moom Djibril War moom dañ ko dañ ko ci teg tegal ci keneen tegal ci keneen te si c'est loolu li wax c'est vrai. parce que Aymérou Gningue aussi il fonctionne sur le même registre que ni mu doon ni mu doon fonctionner ne du du yoon ñoom ñoo xam parce que seeni fonds politique la mais ni muy fonctionner noonu la ni ay mayor nu muy fonctionner noonu la ñoom Moustapha Diakhaté doon doon fonctionner léegi nag règlement de compte au sein de l'Assemblée je crois que aussi mooy li ma wax rek il faut toujours voir qui est près de qui ou bien ou bien qui est éloigné de qui loolu actuellement ni mooy feeñ au sein de l'Assemblée nationale te il y des gens qui sont bien désignés aujourd'hui pour porter pratiquement ce discours-là au sein de l'Assemblée nationale et bi nii ça ne fait que du taxaw. alors tey booy jàngat tey euh, bi euh, Moustapha Diakhaté nekkee président assemblée nationale ak ki nga xamante ni tey mooy ay Aymérou ban lan nga ko mën a ban comparaison nga mën a def parce que am na ñuy wax ni euh, député yi sañ-sañ bi ñu am léegi ak ñu baal ma ci kàddu gi jóg gi entre guillemets bi fi Moustapha Diakhaté nekkee amu fi woon. loolu lu muy wane c'est que Moustapha Diakhaté avait plus d'autorité avait plus aussi de poigne mhm. parce que gis nga groupe boo ko dee jiite toujours dañu war a identifier yow ci sa personnalité. te xam nga un groupe parlementaire c'est pas n'importe qui moo koy jiite d'abord di nga am xam-xam bi di am charisme bi di am aussi autorité bi ak personnalité bi mais su fekkee ne par exemple loolu tu en souffres de y a un déficit de charisme y a un déficit d'autorité c'est-à-dire que député yi leen neex ñu wax or toi tu es chef de la majorité ça veut dire que à l'Assemblée nationale say député dañu war a identifier wu ba pare di solidariser wu autour de toi ba pare di porter le même discours bi nga xam yow moom ngay porter qui peut aujourd'hui mettre fin à cette situation au niveau de l'Assemblée nationale parce que son autorité mayu ko ko tey loolu mu mettre un terme à cela peut-être ça aurait été sous Moustapha ne serait pas passé comme ça mm-hmm. mais Aymérou je suis désolé de le dire il n'a pas vraiment cette autorité amul charisme boobu tey pour mettre fin à ce millimélo là qu'on trouve au sein de l'Assemblée euh, mu mel ni du moom rek ba ci député sax yu nga xamante ne liggéey bi ñoom itamit boobu jàngat naka nga ko gisee. waaw Fatima xam nga ñun euh, suñu problème principal député yi moo <laughs> chaque fois ils sont hors sujet. c'est-à-dire quand tu le vote d'un budget au lieu que les gens viennent se prononcer parce que kii ñëw di jàngat budget bi dafa war a jàngat budget bi passé lan lañ ci lan est-ce que tout le budget a été lan lañ ci war réaliser réaliser wuñ ko fan la sooxee ak aussi lan la budget bi war a prévoir. loolu soo ñëwee nga jàkkaaru ministre bi nga ne ko ah sa budget daaw de lii nga waxoon ngeen ko waxoon ngeen ko def leen ci lii def leen ci lii def leen ci bii fii sooxee na fii sooxee na fii sooxee parce que aussi ñoom c'est les évaluateurs des politiques publiques mm-hmm. non seulement ils votent des lois ils proposent lois mais aussi dañuy évaluer les politiques publiques donc ñoom je crois que dañu war di évaluer politique yi xool ndax jaar na yoon jaarul yoon su boobaa nag nga ne ministre bi leneen la ñuy wax et Parce que ce que Djibril War à l'Assemblée nationale, ce que Cissé Lo, ça n'entre même pas dans le cadre d'un vote d'un budget. C'est-à-dire, moo tax ma ne ils sont toujours hors sujet. Et loolu dafa war foofu ngay xamee la